asalaamu aleykum wa rahmatullahi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mu ngi wax ak yéen lu tuuti ci ndigal ñaari exemple rek ma jox leen ko ci yu doy a xame ni ndigal am na solo ci ki ñu ko jox deltiliya ni borom raw na ko zulumi wax borom mantak arab du ñun saxal mukk waxi kuy wax saxal gu jar déglu lu dul wax ja day ñaari seede su yorul ñaari seede yi rekk doo leen tax a noppi seen soxla doo leen tax a dëju seenam waaxu doo leen tax a xerawlu seeni nopp fokk wax bi yor ñaari seede benn seede bi ci ni ma ko waxee léegi ci olof seede la boo xam ne da koy toxale fu jara toxaley wax mu jara déglu benn bi xel koy tette tette bu leer bu jara déglu soo amee wax boo xam ne am na ujj boo xam ne bu naqali yàlla ak boo xam ne bu àqali yàlla day daal di laaj déglu ndigal moomu nag laa leen bëgg indil ñaari seede yu tax ngeen war a dollee xam dooleem ci ki ñu ko jox ngeen baal nuy ji ku la mbëggeel dox seen diggante nga antan koo may fukki junni te ñeme ñoo bër sa téléphone ak ki joxe ñeent ak taraayu xaar ba ñépp yeewu toog ci ëtt bi waxtaan mu romba yoon ak piisement dugg ci wanag di sangu ñeenti dërëm ak taraayu soo sore fukki junne ki joxe fukki junne te ñemeñul bërse te ko ak ki joxe ñeent ak taraayu soo xaar ba yoor yoor mu sor piisement romb nit ñi ubbi duus bi dugg ndigal a tax boobu mooy layu xel mi layu toxal gi nag ma wax ak tuuti ci yéen ci froid wala saria saria bokkul ak tawayid la ko dale ci maam no ibra maam no maam aadam ba nox sariatu amul woon tawhid rek lañ daan santaane saxal na yàlla kenn la amul dara luñ la tere amul dara luñ la sant bu loolu dëggoo sariatu nag moo ñëw ne la baal lii defal lii yemal fii bul jéggi fii constitution complément yonente yi yëpp ñeentaa ko ci am ñu ci des dañuy siiwarante faraa lakum min ad-diina maa wasaa bi Nuh wala si waynaa ilayk aaya boobu rek dina la xamal ne béykat boobu rek trois cent treize ñooy yonent yi biñ leen defee groupe examen leen cent vingt quatre mille ñooy lan bi yaaw biñ leen defee examen trois cent treize ci raw trois cent treize yooyu la ñu jukki daf leen examen cinq raw ci ñu dawal cinq yi Moustapha génn di première yi première yi <laughs> min ad-diini maa wasaa bi Moustapha moom mujjee ñëw 312 la fi fekk di 13 buñ leen di lim ko ci deuxième normal koo tax bi yàlla yi lim borom sariya yi naka la génne noox gestu rek tëral ñëpp def Moustapha défi ne sara lakum min ad-diini maa wasa bi noox wala li awayna ilayk door wax waa wasina bi Ibrahima wa Muusa waaye an naqimu diin seetal fi ñu ko foofu rek ak fa mu nekkoon maam ndax moo yor constitution boppam bi mu fi jógee ñi courir ci ñoom ñëpp dañ na leen continuer leen ci constitution boobu kenn di ko réviser kenn du ko sens ndax di ko doxal ba Ibrahima ñëw ñorocci leganonta constitution bi ririte ko raf ci yees jox ibrahima ibrahima di ko doxal ba jóg fi ñu courir ci ibrahima yëpp ñu ne continuer leen amul changement ibrahima wéy bi muusee dikk ñu rocc ya gënoon ca téerab aadama ca nox ak ya gënoon ca ibrahima roof ci yu bees jox muusee constitution monsieur boobu ba mu fi ku ñëw ci nga wéy ku ñëw ci nga amul changement si ñëw ku ñëw ci nga wéy ba insee ñu doon def rectification tànn yi gën ca yooyu roofaat ci yu maaseeg jamono jooju jox insee mu di ko doxal mu xëy rek ne bi isqaali isa bnu mariam ya bani israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yaddayi min tawrat wa mubashiran bi rasulin yaati min ba'di yasmahu ahmad ولما جاءهم بالبينات قال هذا سر مبين ومن اسلم من اخطر على لا يكذب ويدعي الى الاسلام ولا اولئك قبضات رسول نيو ني تان يغنون تي يوي ييب بولا تيك لوني مسول دك مسو نيكو غيس داف كو تي القران جوخ كو سونو بروم تبارك وتعالى تي اكم مو دوغال maam Aadam alayhi salaatu wa salaam wa ala nabiyina afdalu salaatu wa salaam sun borom ne ko ci gàttal ajjanaa ngoog ak yaatuwaayam fu la neex endul fu la neex fanaanal mu la neex lekkeel fu la neex lekkal waaye bu laal garab gi mu laal ko ci laal gu yàlla naroon mu laal ko yuridu wa yaamu تارة يأمر ولا يريد وتارة يريد ولا يأمر وتارة لا يريد لا يأمر ولا يريد ñeent tànk yooyu laa dinay doxe ñeent ruur la yooyu rek fi ne léeg-léeg yàlla santaane lëf ku ko def lu te nar duñ ko def léeg-léeg mu nar lu ñu def te du santaane ku ko def léeg-léeg mu santaane lëf narit ñu def ko léeg-léeg du santaane du nar maam Adama lekk garab ga yàlla ne ko yàgg ki nga nekkaloon cëppeelu leen ci suuf ñu ñëw ci suuf dajeeg weer wu ñuy wax baraxlu awa cëppeelu am fukki fan ak juróom-ñaar dàmm feeñu mu continue julleeg dàmm ja suñ borom yëpp leneen ne ne arrêté julli gi ba tàggook loolu mu arrêté julli ba tàggook loolu weeru ñaareel wa ñëw di weeru koor mu oor ñaari fan gisaat këf ka na comme julli lañ ma bàyyiloon de julli lañ ma bàyyiloo woon te moo gën a foor lu ñuy jaamoo kon koor gi matu la wax ba koor gi ci lu dul ndigal suñ bu ñëw ne ko foog nga fay koor gi julli gi kenn du ko fay ba tey bu jigéen bërëgee ba set du fay julleem bu dee koor mu fay koor ga parce que kële da ko bàyyi seen ndigal kële mu bàyyi ko ci ndigal nu ngay waxtaan ak yéen ci ndigali xalifa bi ak ndigali kilifa yi fi teew am na lu ma ñaan maa ngi leen koy ñaan nee ma bunt bi mujj ci xilaasu zaab bi naa ko firi ma bëgg ñépp a toog ma firi ko ñépp kenn bañ a jóg ba bunte bi jeex ñu xam kuy Sidi Hadj Malick ndax kat classe bi day na waar waaye bunte boobu kuñ ko nettali pire ba mu dugg sa bopp di nga xam ne góor gi moom la yàlla baax yal nañu yàlla tax ci barke wax naa leen bataay yi ne ñi taalif ci Moustapha bari na waaye doxin ñii taaru na bi bu rëy bi lañu def téere bi taar bi laata jeex li ñu xam jeex mbaa ñu yokkaat bàyyi ñii njàmbaar gi rek lañu jël def téere li ñu xam bi mu laata jeex li ñu xam jeex mbaa ñu yokkaat bàyyi ñii fa gàddaay gi def téere bi mu laata jeex li ñu xam jeex mbaa ñu yokkaat bàyyi ñii fa jiyaar yi def téere bi mu laata jeex li ñu xam jeex mbaa ñu yokkat bàyyi ñi fab njaboot gi def téere bi mulaat laata jeex li ñu xam jeex mbaa ñu yokkat bàyyi ñi fab gàddaay gi def téere bi mu laata jeex li ñu xam jeex mbaa ñu yokkat bàyyi si daxaj Malik rek moo fa baxaru bi def ci junneeg téeméer ak fanweer bayta amul benn iita bu ci am te mooy takraaru xaafiya qabla sab'ati abxaas te loolu te loolu loolu la ci xarul en mu arut takraaru xaafiya qabla sab'ati abyatin dafa nekk xaste ci ñoom mu woy ko ci ñaari waaw yi seq mimi bi nag muy wa innahu is aradallah ak wan nal amaama rasal qabra yabda'u min wisaati raasi summa alqalbu soo dërëmee ñaari waaw yooyu li ñu lëm li ñu làmb ci xam ak li ñu làmb ci nettali moom dong na cas Moustapha jak leer bàyyiwul leer gi fu mu jaar mu wax ku mu jaar ci yow nga wax mu wax ko lu mu am ci yow mu wax ko ba leer gi soppeeku di jëm mu wax weer ya mu am fañ ko mujjee dénkaane wax la ko fa fekk ak ña ko fa fekk wax weer wi mu gëneeg heure bi wax ñu ko teeru nangu leer gi position bi Moustapha indi waale alaaji Malick wax na ko li mu jëkk wax ci daaji Malick wax ko wax weer yi mu namtu bàyyi na ween wax weer yi mu am mën a wax wax weer yi mu am mën a taxaw wax weer yi mu am mën a dox wax na alxayri ji mu jëkk am wax bés bi mu ko jëkk am wax ku mu ko amal doom ju jur wax na ko ku ci masoor wax na ko ku masoorul Seydi Hadj Malick wax na ko wax na ku ko ko may wax lu mu ko ca def Sidi Hadj Malick wax na fas bu nabi mës a am ak fu mu ko jëlee koo ko ko jox wax na xeex bu mu mës a xeex bu yónnee boppam mbaa mu demal boppam Sidi Hadj Malick wax na ko wax na keroog bi mu génnee Medinatul Makkatal Mukarrama jëm Medinatul Munawwara ku nabi dajal Maodo wax na ko ku dab nabi nag Maodo wax na ko ku nabi dabit da wax na ko taw yoon kat boo ci duggee dangay ngay dabe mbaa ñu daf la mbaa nga daje dabe mbaa ñu daf la mbaa nga daje ku mu dab wax na ko ku ko dab wax na ko ku mu dajal wax na ko ku mu romb wax na ko wax na heure ba mu àggee Madinatul Munawwara wax na fañ ko njëkk a dalal wax contrat bi mu defanteeg ñoom ak ña ko ci ak seeni tur fan ya ma fa am wax na ko départ dooru dugg Madinatul Munawwara wax na ko fu ko Jibril fiqtal dab ko jox ko service bu bees mu njëkk a xamee foofu si daaji Malik wax na ko. bés bu nebe takkee génn wax na ko su xeexee am victoire wax na ko bu xeexee seytaane dugg ca wax na ko ku mu jàpp wax na ko ku mu maye wax na ko wax bés bi mu dajeeg borom bi tabaraka wa taala wax li mu romb ci malakut wax li mu romb ci xaalimul mulk ak malakut ak haut ak naut dellu ci waat wax bés bi mu feebare wax na fi ko feebar bi dale wax bés bi mu ko dal wax li mu mujjee dénkaane wax ñi mu mujjee dénkaane wax ki ko doggali wax ñi ko sang كدون رغ تسوتي بو ندخ سيداج مالك واخناكو كي دون سوتي ندخ ترغ الحلاج مالك واخناكو بو ندخ مي جيخي كو كاي جوتلي سيداج مالك واخناكو كتيوانت امو سيرفيس غير تي غير باركيلو سيداج مالك واخناكو واخ كي نون ولبت كي غاس باخ تاخ بامير بي سيداج مالك واخناكو كي نانغو جي موم جي تيدو جي دوغال كو تي واخناكو بن كو سولي بي نيبي كفا مودي دي ويس لوخ مي سيداج مالك واخناكو ويت خول تيري بي غيس رافاتاي gisit ni mu ag gisit ni yene gi ni mu sotte mu xamne amel na yalla ciam tane gesmam yalla nako yaman يا من أتى راغلا ببيضة تراغ سيالا ترتر من غيرات نذرنا يا من أتى راغلا زبائقا ترارا ترارا قد سيالا ترتر أن الإسلام خيرا كن نيولا سيد حاج مالي رضي الله تعالى عنه لمو يدف درع لمو تفيني الدرام لبهم دبكو ديغة سيال بدون واخ درع درع درع كار كار بو واخي نيو موري جب waaye léppam ci yàlla la ko diigal minallaahi ilallaahi fillaahi billaahi ak taawasalendallaahi jaajëf badalaka laa wax xayran wax xayran sëñ bi mu ñàkk nag lu muy def te dégg naa sama papa wallahi si si daaj Maalik sama papa daan na wax ne te bu Moussa di nettali wax si daaj Maalik danaan dégg naa ci sama góor gu baax nga te ñeme ñi ma koo fenal foog mu dugal jumlatu ixtiraab bi boobu door a wax li mu dégg dégg naa sama góor gu baax nga te ñeme ñi ma koo fenal mu ne si daaj Maalik li muy nëbbu nëbbu li olof di wax ne lu fees tuuru dal na ko bis ñun ñëpp dañ ko wër muy waxtaan ak ñun ci baatu laf xam am borom xam-xam yu bari yuy wax ne siixa bi jubul cheikh bi mu koy jël dafa nekk ci xaal xam ngeen turam xam ngeen taalif yi ci def ci gàttal sama papa ne ñu di ci waxtaan ba si dañ maa ne ah man day saaxo doon naa ci kirti kirti sax bay bind ba faas waaye bu ma yëgoon sax du ko bind ndax borom nee na noonu la ko jëlee ci maamam wallahi wallahi mooma ko ah man ñëpp xoolante ne ah góor gi kañ la fi jóge ba gisee teg ca tijaan ak ba ca tijaan demee ba mu ba mu di ko wax ne noonu la ko jëlee ci maama wande lu fees tuuri googoo ko dal mu wax ci boppi téere bi na yaa xaayital baxar bu fekkee li asdaaf rek a tax laa ne taxlil bi la matatu ko dafa léebu nag tees boobu lay àggali sëriñ bi wax ak yéen ñu dugg ci bunt bi dafa am lu ñuy wax zëdd wax nañ ne nawet bu nekk ndox yi muy mujjee taw te muy ndox yu digg yooyu du ànd ak xiim du ñoral du màggal du saxal te yàlla du def mukk neen ndox moom dina fekk yi sax sax du ñoral dina fekk màgg gi àgg te yàlla di ko dëkkee tuur nee nañu ay dina koy recevoir di diig ak moom muy doon jama ku ci won na benn pepp dem moom yaay gën a rafet rafetle yaay gën a rafetle jamaa ki am ñaar jamaa yooyu nag ñi ko xam te di mool di di ko jëkkee wuti rek fukki gaal yu tëm juróom ya dinañu dee te duñu am ñett ña dinañu ñëw kenn cay am si daaj Malick fab maami ne bii tudde ko jamaay boobu fab dënn sëriñ si nag tudde ko géej gi mu daal ne comme maa mujjee ñëw foog ma defu fen wurus wii nit ñi dëkkee di wuti di dëkkee dee man kenn dinaa yetta gaal man alaaji Malick rek farga ko man kenn maa koy peinture man kenn dinaa lankoo gaal gi man kenn dinaa ko tëmbal man kenn maa koy lax di ko wallax man kenn képp maa koy mbanduy ba ba dem ba ca xeer wi wurus woowu ne ma seer ko niip wurus wi ba mu jeex tàkk ma def ko ci gaal gi teer ak moom ku ci bëgg ti ñëw sàkk doo neer doo tooy te bëgguma neexal faalewu ma weexal ñëpp nelaw Maodo tënk dem ba ca xeer wa la fay wurus mu jukki ko daaj Malick ne mool yi gën a njaxla Maodo na ko yaa xaayisal baxari yaayu mun naa daa bu laafee day nasab su la neexee nga ne yaa xaayisu albaxara boobu Maodo ne hey yow mi bëgg a jiñ bul dem mool mi gestu na kuy oote ci kaw gisul kenn mu sëggaat di ba max maa dana yaa xaayisal baxari hey yow mi bëgg a tëmbi bul dem ñu ges na góor gëlee ko wax de su la neexee yaa xaayisal baxari dem kenn nga yaa xaayisay baxari bi bi bi bi isqati nunu tasniya wala jamaa na ngeen ko jànge woon وتسقطوننا في الإبادة ولا يا خائصون البحر والجن wurus amatul ci géej gi ñu a ah sunu dépassé kër sunuy impôt teral gan gi ci géej gi lañ ko yaakaar rek góor gi naan bu leen diit mu ne hey bu leen saalit india nekk rek sama dënn bii man mi leen tere as daafon façon nga xeexu na bi woo xam ne bi a ahlaa moo gën a foor bi na jëlim yi ci fu ngeen waroon a kon li mu léebu dana yaaqaayi fel baxari yow mi laxas jëm gànnaar li asdafi ngir xame maami ne bi rek dem moo tax ngay dem waxuma ilmu naxaw de waxuma bayaan de waxuma mantak waxuma ilmu nujum waxuma hadis waxuma luzul waxuma bayaan waxuma ilmu izab waxuma ilmu kalam dama ne ndem li asdafé tax togal sénégal ya xaysal bari yomi laxas jëm fuuta ndem li asdafé tax togal sénégal ya xaysal bari yomi laxas jëm faas ndem li asdafé rek la togal sénégal ya xaysal bari yomi seeti mooyi bu la dëniyo bu fekkee nekk na ngir li asdafin xam mi maa rek a toogal Sénégal ñu ne Alaaji Malik ku toll ni Moustapha kenn du ko xam réeru ko mun a bu leen saalis indee nekk bi sama dënn bii man Alaaji Malik asdafun façon nga xam ne ni yoo xam su ngeen ma dégloo bi yaa nekk na ci biir xam-xam ba durutun aw fara fàncin woo xam ne ahla moo gën a leer gën a dëggu mi na jëli mi ci dënn sëriñ si ah. ñu ne ko Maodo loo xam ci nabi ba oote lu toll noonu ne ku laxasoon dinañ la laaj de mun a duma jeex duma ñeñ ñi ñu ne loo xam ci Mouhamed mun a tànku bàyyi ñu ma maa mu ne abdoulaye sey ba ta xaasim abdou manaaf xusay kilaab murata kaab looy xaalib fii rek ak malik na di rek kinaana xusay ma tax mu dëkk ba ñuux ko ci àdduna ñu ne góor gi wax ni dëgg kat fan ko dee ji nag mu ne aminatu bintu wax bi nib na abdi manaaf nib na zahratu umul mustafa alamin nim ni kilaabin waxul fii daal boobu ma aatikatun qila indul umu wax bi bi ñu ne wax na dëgg واو سيد دبي لاسي مومن مكه خمغا لي مونا باغنا واخا سجوف مو بيت الله راسخنا من بعد ناجي في الله سامنا رو امي ني نا وينا اي مصطفى مونا يا ويلا راك دلاك نا كي دتو اسماعيل سوكو فو يولان خاص الارم ني نا جندي بينو انتريت مونا با دمو تولبين من بعد مر ريلا فتات شورو فتات المجد كنت لا نك يا مونا وا امار باتن او ستتن علاقات ام النبي بابوا او سومي ني نا كان لام غارات مونا من بعد تاري ولا ني su ma sittati asuurin raaqan fi laaqi sotti lam yëg ñu ne ku rafet la woon mu ne laylu bi mujibul qaala waylu ina rasula bi qadri mo ñu ne ñaata yoon la xeet mu ne rikamu xaasihi yaadi mubridan kabidan alal xilaafi ñu ne waaw jabar yi nag mu ne soo joofu maatu moom la ne ba wa xayru salika ixtilaafin fi rusumi mi ñu ne lu ma amoon mu ne loo min al xayli sark bun ñu di ko laaj benn ba benn ba ne ko kañ la génn addiye mu ne ama oxda mu'tazan ala jëlelin daawu fi safarin mawlaa lil kër لبصري يعلم الهدى لا ترجمني من القرآن وترجمان العلم والقوي كم نهد لشدائد يا قد فرجت هات وحوائج قد بغير جوالا كم أغيث بجاهكم من صارخ سكت بعيدكم وغريبكم وبرد كم ساوجدنا نعمة من فيضكم يا من إلى ذك هلوى شكر جبل لا ولون الماء لون إنائه فلذا سهوت من ال أنا يا مطمح الأبصار يا علم قلت يا ترجمان العلم وال قل يا حب خير القصد يا سعد الورى والمرتجى لشدائد قلت كان هذا بنيك احمد متوسلا يرجوك ان وفد على قلت يرجوك في الدارين نيلك يبتغ نيل المنى والعفو رضا وجزاك عن الله خير جزائي ما خرج وارخر على أغصان يا مطمع الأبصار يا علم الهدى يا ترجمان العلم القرآن فاكر عثمان الذي قد جاءنا نور الهدى من أحمد الذي يلتقى ابن عثمان الذي يوسف بسياسة وسماحة قول إسحاق بن عثمان الذي يروي لنا عن غلة من ماء فيض بل قال وبعلمه وببثله نال المقام وعدله في سر والإعلان وبهمة سباقة وعزم من كالسيف تطأ حديثا حدا وبحلمه سعد الأنام وجودي هذا الورى من ربنا من حتى على فوق المشايخ كلهم معي لو في عشره يغرف لغر غدا بين السيوف مقع يعلو على الجو زائوات دعيانا إلى عثمان الذي غلب الورى بعصا تقام من غير ماء إلى عثمان الذي أقر نهجا كريما سيك المرء فلنتوب لنا من المنعيات وسيلتي خير الوسائل دائما احزان kan kenn ku ne ngeen baal maa xëy ñu jàng fatiha ak ñaari musluwaay yi fasal ko yéene xalifa bi ak kilifay lislaam yépp yéene wàlle ci suñu bopp toog ci toogaay toogaay ba neex ngir loo teg sa bët gémmiñ di ko ñam ba tax toogaay waaye bu sam xel bu sam xel ni re yoxet bala fa jëm jëggi dellu si nga contrôlé jeexiti toogaay boobu nga toog te mu neex xam nga lu yàgg-yàgg du la jural yeddal ëllëg du la jural it mbugal ëllëg day gën a neex déggu leen ni ma wax de ma ne léeg-léeg jox toogaay neex lool ngir la ngay gis mbaa la ngay dégg waaye boo dee borom xel mu rafet te xel na yoxat bala fi nga toog xam nga nit du fu mu toog dégg fa xel ma wax naa ne boo demee ba mënatulaa jóg di xool deret bu la wenjalee buñ ko dàqul du jóg soo noo tas fii sun borom di la xaare wala qad jitumuna farada kama xalaqnakum awala marra بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يقدر سقيرة ولا كبيرا الى وجدوا ما عملوا هذه xaal boobu boo ci tolloo foog sa xel doxi ñëw mënatu laa jóg waaye xel mi dina dem dina dellu si jox ma wax nag ne boo toogee ci jotaay jotaay ba neex sam xel ci dellu si indiwulal mukk yeddeel goo xam ne jotaay bee la koy yóbbi ëllëg mbaa mbugal jotaay bi day gën a neex am di noonu alaaji abdul aziz yal na yàlla guddal sow fa singaari te boole ci wér nag oote bii nga oote jaarale ko sa njaboot gi àddina bii daje waat naa ci yàlla ne ku yéene nit ñi àjjana dong moo antana téeméer te xam naa ne caabi àjjana ni ma la xamee bu nekkoon say loxo kenn du gis sax billaahi yal na yàlla doole dëgëral ma firi leen bunte boo xam ne ku yàkkamtiwul ci darajay Sid Haaj Malik ak faydoo loo bëggoon Maodo dina yokk loo fonkoon Rasulullah mu yokk bunte bii li ci Maodo dëxëñ laa wax ak ni mu ko tuutale dafay fab benn way rek rang tam le kook rang tam le rang tam le benn way ci biir way bi bunte bi may bëgg a way wenn wayan ci wu am doole fii fii بيت عائشة قبل سوار بغير مولد الأزمي تتلوي وورد Aïsatu da daan wax ne Moustapha ngi dee ci sama ay ba mu feebaree ku jub la woon ci moom la ñuy royee jub ku maandu la woon ci moom la ñuy royee maandu ba koy saay saay ba ne Moustapha maandu ci li ngay def fekk muy séddale na fi daf ko xool ne ko su ma maanduwul kuy maandu waaye ba mu feebaree da daan wax ku ma ayee ëllëg bu xëyee ne ay na ani xadaa Subayru góor gi xawaama ko jur Safiya tey ndeyam Rasulullah am benni bàjjen yu bokk ak papaam ndey ak baay juróom ñi kenn naa ci bokkul ak papaam tuub yàlla lu ko neex def Umaymatu Barra Bayda Atika Arwa ñii si laaj maa nee na Asiqa Abdallahi faxtanimi juróom yi ak papi na bee bokk ndey kenn tuubu ci kenn ci ñoom safiyatu rek ci tub safiyatu am sa tu la bokkal xaalatoo ko jur waaye jege ñu nag na biir ci tànku ndey ndax aminatu papa wóob la tudd xaalatu wóoy bu na ko jur wóoy bu na xaala waxaat ba bokkal ndey rek bàyyi góor gi Abdu Mutalib moo wutali Abdoulaye soxna ñu may ko ba noppi ne ko góor gi mag nga de waaye yiw nga yow it boo bëggoon jabar ñu may la de kiñ la may maga ma ngi fi mu ne ko ma may mu jël ñu fab aminatu may ko Abdoulaye fab xaalatu may ko Abdul Mutalib maam ca amsatu ak mu xawimat diraa ak xale boobu ñuy wax safiyatu mu màgg ñu may ko xawaa mu jur Zubayru muy doomi bàjjenu Rasulullah moo tax keroog ba amsatu daanoo ci Uhud nabi def consultation ci aho fekk amsatu daanu ñu dog tu fekk aho dañ ko xeex sorewul ak Medina jigéen ba dégg ko di safiyatu di bàjjen ci Rasul di wallu si nabi ne Zubayru neel sa yaay bu mu agsi te ni jaay góor mënu ko gis ca xooxatuma la ak jigéen mu dem na ko yaay Moustapha ne na bul ñëw sama nijaay ni nga ko déggee am waaye na na bul agsi mu ne ko la ma tiim ma tiim sama càmmiñ balaa ko rog mu dellu si ne ko sama yaay ne nga bàyyi ko rek mu ñëw du jooy moog yow bokk fi ngeen naan te yéen a bokk si biir mu ne na agsi soxna si ok nii robb yi di jéggi niiw yi daal si càmm si tu tiim ko ne ko mëpp ful ne ko tib taxay yan wa maa yeta mosulaa dañ jéggi dañ gàcc di jën gàcc ci kanami nguur te ba yàlla jëlle yàlla yàlla may àjjat na waran dem su béyu moomu moo doon roog poqataani Moustapha Aliou Sow ne ko ñu watat ko ba néeg bi mu ay ñu dugal ko ci. de Musalamata jabaram la ju baax mu réunir femme yi ne leen kii dafa gore rek waaye talatul tax ay. nanu bay ay bi may ko ndaw si ñoom ñoom ñu d'accord may ko ko waaye ay surtout ne na ay bi continué woon contrôlé naa maa war a ay keroog bi mu faatu daana wax ne na dégg nga faatu suma kër suma biir néeg suma bésab ay faatu na it samay tufli dajab yosot ndax Moustapha ku bëggoon seet si la wax nañ ne soccu am na 36 ngëneel bi ci gën a gaaw dina waral fasax dina dàq xetu gémmiñ dina dëgëral siiñ dina dolli gis dina dolli dégg dégg te soccu kat ñaare deem du métti waaw téere bi na loolu ba nga xam ne ne na bi arrêté na ko amul plusieurs su dootoo fi dugg Ababacar jiite nit ñi 17 bill yu farata ku sa jigéen sëyul ci kër gi mbaa na bi may la doomam doo fi dugg Abdourahmane xëy seet si ko bokk ak ay sutu moom ba ay fekk fekk ne bi socc bi tey tey xet soxna si xam ne socc bi la bëgg mu dee ko ne ko xanaa socc bi nga bëgg fekk laa nañ waa ngi wàññeeku ne nii bopp mu nangu ko xale bi sexal ko ko bañ yi dee mu rot mu por ko pomp ko sexalaat ko ko bañ dee mu mu ne ko ma yéyal ko ba mu tooy ne bi ne nii mu yéy ko ba mu tooy mu jonj bati boori ndeyjoor ba jonj boori càmmoñ ba نجك أتمنى الله ما رضي خلا على روجرو ما تخمن السماء إلى رضي كيسم الدنيا كيسم الدنيا سمو تفيد لجك كي داجي مالني في يوم مولدي بنك سبارة في بيت آي سيتي بنك سبارة خطل السواء بنك سبارة بزهري وخنا غير بينا بيجيني أدينا وخ بس بمجيني أدينا وخ أور بمجيني أدينا وخ ليبي كيلا نوي na way wi wax na ci weer bi mu génnee àddina wax mu génnee àddina wax heure bi wax lieu bi mu ko defee ci bayti ay sati lan la du barab xam la sawal lu mu doon du heure te seeni mawlidi yi du weer yii la maalaaji Maalik ren këm la ci wenn woy dara jàngarul mu teere noonu noonu la sarcee nag noonu la sarcee ci la sabi ba mu daj wenn woy wu ci nekk mën nga cee am fukki fan te du jeex surtout bunte bu mujj bi ngeen toog rek déglu dama bëggoon sax kenn bañ a ndax bunt bi mën a jeex wala boog ngeen di ma ko defal benn yoon toog kat bu ma jógee nag gaay maa ngi gësam garab bi maa ngi gësam garab ak garab ak wax garab nag buñ ko sàkkulee ndax gësam ko léeg doom bu ñorul sax rob waaw ku ci seen doom boo xemem leew na la ku ci gis beneen boo xam ne wuute na loolu nga ñaanal ma te teet kasi xamal bul di xool kiy wax arab na bul xool waxkat xoolal la muy wax la muy wax am solo kii wax amul solo loo ko jéppi jéppi nag bu baaxee fabal loo ko bëgg bëgg su kiiwulee këf këf ko Maodo yëkkatil way wi jox ko alaaji gay mu yëkkati ko ngeen jox ma. xaalis al baxri Moustapha am 40 ans ñu door koo yónni ñu dina laaj kañ la dee nga naan bi mu amee 11 ans mu ne taxutee tax may wax lu ngeen laaj juddu ñu ne waaw mu ne kañ booba muxtaas naa laa jëlal bu dee juddu kañ dëgg-dëgg boobu muxtaasan laq na ala jëlalin ci sifari jëlalin lam 30 la bii lam di 30 mooy 63 ans. keroog bañ ne. كما الله نفذ إذا جاء جلوها سنبي كم فوسي القرآن دفنا كنت اللين ما لك دالة تأخرى بسور فنجن في يمكي سوزان تواسا روف الم بودل لبلا من ذلك دي كنت فإذا جاء أقل منافقون سوزان تواسا رلي جو مدفلة آية بل فرسيار نيرا لدي بل يحبوني qul yatawaffakum malakul mawti llazii wukkila bikum summa ilaa rabbikum turja'uun ku oote mawlaahu borom ak kii ma doon woy ku mu oo wuu ki ma doon woy fu mu jëm ak moom lil karami ci ajanaam ju tedd ja kañ ama uhdiya asan asma ñu ne déet waay si mu ne juddu ngeen di laaj ñu ne waaw mu ne boobu moxtaasan ala jële bi ñu ne waaw nit ñi rey ñëpp lañ ko rey mu ne am na fu lu ma xam ko ngëneel gi dem na fu nekk am na luñ ko beral lu ñu defalul kenn

عن الزعارف ذا زهد وتسمم أخبر الله إذ ما قيره الله إذ ما قيره الله أخبر الله أخبر الله على كوني ساسود ساسود أن الزهر سورة سورة فنغو فلا لا جمال جيل جلوخ يمين سوق Thank you. dafa tollu diggante oo Fatima mu sëgg ci noppam mu sëgg ci noppam rasool di wax ak moom àggalagul mun a ñemeeg siggi mu forcé ko mu sëggaat am lu ko Moustapha mu siggi jooy minute mu sëggaat am lu ko nabi wax mu siggi ree ginnaaw gi laaj nañ ko ne boole nga ñaar yu safaan sa papa wax naa ak yow keroog bi mu génnee àddina nga siggi jooy ma waxaat yow nga siggi ree mun a wax bu jëkk bi daf ma xamal ne tey la sama bés bi mujj ci àddina tey laa dajeeg sama borom looloo ma taxoon a jooy te gàtt bi nag li ma tax a ree daf ne ñi ma jur yëpp yaa may jëkk a fekk si looloo ma kontaan loo mu ne ko lu tax doom may wax yow ngay siggi te yarewuma la noonu na bi ëppoon ñëpp a teggin bu dajeeg yow ci yoon waxat mooy jëkk a jàdd su ngeen joxantee loxo yaay jëkk a rocc su ngeen taxawee yaay jëkk a départ su ngeen di jàmm sant jàmm sant yaa jëkk noppi soo ko nee mani mu taataan la noppam bu tedd ba teg da ngaa ci wasa gémmiñ du siggi yem si bilaa xafin wala naalin ila iyadatil maridi jalla wa mu ne ko papa day def bu ma sëggee rek mu mel ni takka déer tiim te bu ma sëggee du ma ko gis na bi bëgg a jóg pour xool ko doole di jeex mu ne ko may ma dox mu rof poqataani Moustapha yu tedd ya dëj ko na bi dawal bët bi muuñ na ko wax nga dëgg malaakal moo tey làqu ci bunt بسم الله دي بومو جو ني نكا خمنكو علي سائر ديتا او لغابدين ملائكه يكتب سنن ما بومو ديو سي والا لا بولا نيهي بولا نيهي اي كوين في واخون لولو بلام في جو بولا نيهي ما لا بوغنا تلو سو يالا نانا Jibril lay wax ak Moustapha nga toog fi julley at te boo dee dem àjjana ak nga dem tey àjjana mu ne ko dem tey ma ne ku ñu noonu toog fi junney at kaay dem tey àjjana tey tey ñu yóbbu la àjjana mbaa nga toog fi junney at te boo dee débrouiller sa bopp da nga naan ay eh, bàyyi rek ma faf débrouiller sama bopp moom nag dañ ko ne tey àjjana junney at àjjana mu ne tey déglu leen wax bi واختار موطن البوبم لا دجاك يال كاج لا اذ ما خيره كرو بنغا خمنا تان لو نكو دما توك كوكو ديف لو لاو يال اختار الله اذ ما خيره الله اذ ما خيره الله واختار الله ني لا نمو ديف نجبوت بي مون ساسو دي مون كري مون ساسو مون لا اله الا الله اختار الله على كونه saa suudin ani zahaarifi wa ala kawni saa suudin ani zalami njaboot na leen fott nit ñi ñu dee Maodo ne xam fan la feebar xam feebar bi attaqué xam bés ba wax nu ko si balaa guddi mu ne la. شعب وهنا انا الرائد له في يومه العالمي تلمين البيت التقميم البيت بطل تقميم البيت موي وي و ارو البجيا تخ واخ بجيا تك تك تك تخاف يا بدك نقول لك كومبليتي تلمين البيت موي وي و جيخ تك خاف يا بجيا تخ واخ بدك نقول لك كومبليتي moom du def na ko ba tàyyi ci xilaat kat Abdou Manaf bu mag bi laay wax waxu ko saa maasaaloo yelloona ilaa an jaar dina ci fan في بيت عائشة تنيجي جبران بني وخ عائشة كان قبل صوال ينعو ديكي بجب يدو تسبا كده عادي مالك نبغين قمول في يومي ايما فريقو في يوم مولده موي بشب في بيت عائشة موي الليب قبل صوال موي ارمب من غير مولد ويروح xamal ne bi bi Moustapha àggee Madinatul Munawwara réception bi neex lool من أجل ذلك رغب أرخاء سنان لها أتتنوق تتنوق لو أتت جنة وما بتاء أين تدرك قد يقدر ابن مالك الله كتب يدرك وما بتاع نبتدي قد يقتدر به على التاع فتبين الحق هنا البكما في تعطم بالتاع بقيت تعطم بواد مكارحه mën ngaa doyloo jenn taaje bàyyi benn ba moo tax alaaj malik tagg jenn tàtta bi nde wayu moo di min ajli zalika qad arxa himama laha atta tatanawaxa mu diis mu tegg jenn taaje mu rek mu way ne min ajli zalika qad arxa himama laha atta tanawaxa baaba al masjid al arabi min ajli zalika mooy lan walam yasal qailan mustalzili ma مأمورة ساعة أذن سوي موت سن من أجل ذلك نكف أرخص ما منع بنا بنا يخص من يتم منورة دفع فيك أن يخال نعرم بك قدري تي نك تي ندي جور لو تي نك تي جامع نفا فلوري borom taxi ko yi ci di tour bong bong ñi di tour sandarma am nañu bari xaalis bay rotol benn benn benn benn li bi doon penc mu mu dugg nag juróom benn penc a mi dina boobu penc bu nekk am na chef de village il borom taxi kaw yi yëg ci di tuur bong bong ñu di tuur sandarma am nañu bari xaalis ba yor sol benn benn benn benn li bi dox penc mu mu dugg nag juróom benn penca mi dina boobu penc bu nekk am na chef de village banni bayaadata banni zaïs banni banni xaadis kenn ku ci nekk bu duggee seen penc balaa ngaa génn nga dogale ko téye nosu na ko bu ñuy wax Medina fee tax wàccal fii la gor yi ne fii la jàmbaar yi ne alaaji Malick ne chef de village bu wax loolu na bi jéy sene ba téléphone ak am lu muy di bu la ko déyee rek dana yalax paaka gi dellu ci lànd bi dinañ ko continuer tàpp mu ngi sol mant bu sonn daana def toujours boo amee victoire nag lu ñu lay tañ daayu bokk yi lang mu mel ni weer bu ko benn dayaada xaalida yi chef de village bu ni ko nuuf ne ko fii la doole yi mi dina ne fii la góor yi ne wàccal na bi langaan am lu mu ko diir mu ne yalax dellu ca làng alaaji Malik ne la ne bi doon déyee xam naa ko waaw waaw booba commandant d'arme bu ñu wax jibi la jiit yor benn bato wurusu ngalam di jox na bi sin di leen di siiwal ko ku ne nuus mu ne sëñ bi moo tose mi mahmoura di leen di si digal na ne bàyyi leen ko mu dox maa doon am ne min ajli salika tontam lu sax dàkka loola mu tontu ko premier deuxième troisième ñu ne ak li saalika ngir dégg tontam lu tax dàq googu xat arxaa la ñu libéré ci maama nos ga laa ñal gilim mu tempal boppam rek di fóot di temp di fóot rek atatana wax baabal masjid cafanara doon bunta ba fii ndéem keroog ngay firi ndéem keroog ngay firil nga ne cafanara doon bunta ba bu dee tey nga ne ca bunta ba fële tëdd way badru ma allah aha zuma xat wasabat wasabat wërëb baax na jeunesse baax na ñetti tomb ak raak ñetti tomb ci lañ naa dafa bari lu bi ngir sakanal indi saar waaraat walam taxa haa walam tanxa warajaat warajaat wa baraka wa barakat wa jaja walam yaxun kooku ma jaaf la bi asfi jumlatil jumla dafa am ma jaaf bi asfi xaraf ak ma jaaf bi arfi kilima ak ma jaaf bi arfi jumla ak najaat bi ak jumlati jumla employé taaxa suratu taaxa fa qabaltu min asaari rasul fa qabaltu min asaari farsi jibril ak rasul yépp ñu dox ma ci alaaj maa ngi dagg yooyu yépp ay ba mu gisee Maodo dafa bañ a di wàcc mu ne ñokket dox dellu si waat yës ne nañu ikkamatu bi ne ci yës googu dem dellu si a ñaar la premier yëf bi daf ko ne fay kër gi yàlla wax ne bi diig digal mu dellu si isaas ne ko fii lañ la yoon bi moo tax si béyti ay isati xam la sawaat yes ko jëkk gi dana kër gaa ne bi diig digal pour mu wóor mu jóg wandaalu yesaat ne ko fii it mooy bàmmeel bi fi ngay taxaw ëllëg romb nit ñi yëg nga ne njàpp ma ne bi dugaale woon bàmmeelam moom lay taxaw ëllëg ramoo ko nit ñi du ko yeesal sax afdalul xalqi fi mu benn bàngo benn ba bi bi dogeeg biñ koy suul réeroo am na xamaa do la ko wax léegi réeroo ndaw soosu mooy jaabante ñaari jaabante yooyu ci keroog ba mu agsi si daaj Maalik ne xew-xew baa ngi amee fi yow mi mawlidi bésa ngóob si bayti Aisatin palaasa ngóob xabla sawaal heure ngóob bi seeri mawlidi weera ngóob dañ jékki-jékki rek giléem yi ci mi dina yëpp gëmbandoo mbaam yëpp ŋaaxandoo ginaar yëpp sabandoo garab yi def xatatatatat xeer yi yor Abdoulaye na ah, doomam dafa fekk tool na ko bàyyam na lu xew de mu ne ko lan la mu ne ko rasul génn naa dina léegi la ñu wax mu sànni roto bi fekk mu ngi planté mu sànni roto bi ne yàlla xale li ma wax bu dee dëgg xaru day araam waaye sama nagi bët yi bu fekkee lu ma xool xoola ci du ma gis mu Moustapha naa gëm ma tey jii fala fala silmaxa ba dee xasuwaa gilee moom la woon ba nabi dogee dañuy xëcc di xëcc ba teen nga dog mu dee dugg ci teen yàppor mbaamam ma lekkatul naanatul ba ni mu ko fekkee Moustapha Sarr si dañ maa dina wax yow loolu léegi ñu ne waaw alaaji Malick ba nabi génn àddina ñaata fan la ci weer bi mu ne ñetti wax lañ ci wax duma tàyyi nag dinaa la indil yépp ba xam ne li ma noonu la yàqaay sel baar yi dëgg la ñu ne ban ak ban ak ban ak ban mu ne lan Oh, yàlla mu ngi génn àddina li laylatin ci fan gu jëkk ci weeru gam xiila nag xiila ak xultoo am ci arab xultoo gën a dëgg mooy firi mane xaalaa ci topp mooy mu ku la sonal nga wax ci wax xiilaa gën a doy mooy neef na ah? <laughs> مرة لليلة خطقرت وقيل الليلين غدا غلطا وقيل بيوب الكبير ويت بعد دو صديق غتيم دو ويت بلس ويدو ديس بلس دو دوس الزخر بكو ونيالا دمير دانجي دلو شوير وي بكو كالكيلي دانو waaw am na ñaari wut bii demir ji ci weer wi la dellu bii demir ji ci Moustapha la dellu dafa am koy ku doon laaj salaatu naariya ak salaatu turjina bu ci gën a foor mu ne ko naariya day di demir yëpp dellu ci nibee tax ma gën koo sopp te kii demir yëpp dellu ci julli waaw waaw moo tax waaw maa ngi dem de xii la am nañu ne maa ngi di questionné si nag li laylatin génn guddi xat xala boo xam ne wéy na ci weeru gàmmu la nabi génn àddina ma laaj la kon ñaata fan la feebar ci digg baraxlu wa feebar bi tuub fukki fan la woon ak ma ne boo amee benn bés fale dee kon ñaata fan la feebaroon ca weer wa fukk ak ñett du noonu wa qila lay lay nii bu fekke ca ñaari fan yàlla te fukki fan ak ñeent la feebar kon ñaata fan la feebaroon ca baraxlu diggu gàmmu wa nga ne fukk ak ñaar du noonu ma ñu ne fi wóppi fukki fan yaag ci la génn àddina kon ñaata fan la feebaroon fee ñaari fan am nga si daxaaj maa ri ne dikk waay takkal si ndigg te bari xiila yi bu mu la tax a yokkat fa hëg gëstul rek gëstul jëndal te nangoo yër bu yàngee nga dajeg dëkk wax naa la ne xultu ak xaala ak xiila xiila xultu mooy firi mani wax naa ne boobu gën a wér xaala mooy wax na ne wax na ne ku sonnal ci ko wax mu wax ci wax laa wax waaye neef na amul fu mu dëgg da toujours ci ndégg gi daa di xam ne fi dëgg di gën a jori jëm bu leen woy ma ñaxetu ñaar yooyu ngeen woy nu jàll dama ko góor gi dégg yëpp juróom-ñeenti bay saa si Seydi Hadji Malick ne na fi qawlil ashari wax ji gën a siiw am na jeneen ju am waaye bi gën a siiw laa lay waxal ngeen yàlla Muhammad ci digg guddi ga lañ ko doon déglu leen nag foofu bu baax gaay fi qawlil ashari laa lay wax wax bi gën a siiw yëg nga yëg ne loo gis leneen gis naa ko dama ko waxul wax li gën a wér maa ngay wax damay bañ nga yërëb leneen gis feneen leneen lu wuteeg lii ma di la yëgal ne gis naa loolu lii da ko gën kon bi xaw ne azari <laughs> wax bi gën a wér mooy ana daf na suul jëmmam ju sedd jëmm nga amee léegi su la ñu ne ban heure mën a fi jëw fii la ci digg guddi yow laay waxal nag di koy bi xamal li ma lay nettali wax te nii te nga xarañ ba mën koo nettalee ni ma la ko wax <laughs> bul woy de ñu ne gaaw a rab mooy sunna ci juróomi yëpp rek la bëgg ko gaaw rab niiw bu wóoree na dee na ndéem dafa lap mbaa jaan màtt ñoo ñaar bëgguñu ko leen gaaw ku jaan matt bëgguñu ko ko gaaw a rob ku lab ci géej bëgguñu ko ko gaaw a rob niw boo am gudul yooyu ñaar gaaw a rob la ci yoon doom ji jigéen ju mët a gaaw a maye rek bor boo leboon ba jekkoo gaaw a fay rek tukki ba sa aajo faju gaaw a ñibbi rek lu tax rasulillahi alaaji maa dañ lay laaj yaa noonu yaa xaalis bari lu tax na bi santaane gaaw a rob ñu tardeel koo rob mu gën a gën altine ci inaar jàkkali bëccëg ba dugg guddi talaata ba bër set mayandu talaata ba jant so mu dugg guddi ga ba mu xaaj lu waral loolu mu ne ñaari fee xewal yëpp ginnaaw bi mu dee la xew fee bu ci nekk dafa am werante werante wu nekk arbitre rek la mu leen atte xam naa billahi une heure ba min daasati deuxièmement istiqaal yi man yi wàlla kàllaam bi deewul Omar ne na deewul ku ne dee na rek la dafa dee jéeg yàlla nu Muusaa defoon ba tëgit altine bi loolu la ñu werante ba jant fa ñu d'accord ne dee na ndax Ababacar leen jimbi booba mu ngi aye ci séetam bu ñuy wax Abibatu bintu Xaarija guddi ga Ababacar fanaan nii mii dina kër bàyyi xale boobu la fanaan keroog la xale boobu judd nga xam jigéen a gaaw màgg benn bi dem àllaaxira mu ngi koy céetalu moom bi muy dem àllaaxira mu ngi ko mu ëmb bu jigéen la wasin ginnaaw ummu kalsoom la maa ngi dem ak xaroo alaaji na ngi ne tardeel nañu lan daf na nabi rob jëmmam ju tedd ci ngir lan ngir ñaari fee premièrement min tax xëtin tarwum gëlante du dëgg deewul ñi d' accord ba nabi ababacar ni innaka mayitun wa innahum mayituna suma innakum yawma alqiyamati inda rabbikum taxtasimuna lañ d' accord ne deena waaye nag duñ ko rob na taamu ko ko remplacé ñu taxawaat nag ci yeneen werante bu istiqaali yim ak yittewoo bu ñu yittewoo man jëmm joo xam ne yu walla dana méngoo kàlla am réew mi xam nga luy kàll ci arab kàll bant bu réy lay doon bu tooy ñu bënn cat la rob ko ci biir ci nag nag bu ñuy bayloo roof benn benn ba roof ko ci benn béjjinu nag ba ñuy béyloo ñu ànd a kostante duñu mën a séparé na leen bant boobu la jëlee te mënuñu koo teggi loolu la ñu lay tudde lépp loo ilif te jubul soxna soo mënoo la delloo sax ci la <laughs> soxna soo mënoo la dellooy bokkam te kiiwul sax ci la kalla la ak xale jàmbur buñ la jox te xamuloo nooy def bàyyi kalla la kalla ak xale tardeel nañu def na nabi rab jëmmam ji tedd ci ngir ñaari fee première ba min daxsatin tarug ngëlante kon neen min daxsatin aaxaro daf na nabi wa aaxaro daf na nabi li istiqaalihim man yu wala kalaam riibi seenaa liu xelam a ngi woon ci remplacé Moustapha Seydi Ibn Maas xatara ju indi ko zona bi bay de lawsu indi ko Medina ne waa Màkk bu leen gàtt xel doxandeem bu yilif gudd ci Moustapha lay yem bor la ñu ni yéen li ngeen bëgg la ñu bëgg candidat bi gën a jug waaw ah doxandeem rek ñëw ilif gudd yi xaar loolu yomb na moo tax keroog ba gaay ne dañu rajaana ila almadinati aarusana lahazzu min hadam dañu def istiqdaam nag boobu borom bayaan borom bayaan di wax delloo demir di jeexalul la mu doon wax dëgg la wallaay loolooy am waaye nag dañuy juum ñu suñu moomale teraanga dëkk ko kenn ko xañ ko moom fa daal ay wa wala rasulihi wala muminina wala kindal munafiqina la ya'lam Sëriñ na laa xam xale bu tuuti la woon ne bi dafa dugg nit la bëgg ko papaam daan na ko woon doom ñee naa la trop place bi sama bopp laa ko gën a yéene waaye rek doom bu ko yëpp lu doxi caaxaan bu ko yëpp mukk lu ñu dëkk loolu rek laa lay dëkk keroog ba ñuy dem keroog ba ñuy dem xasira ndax ñàkk ñu ne balaa ñoo root mbuusu kenn rootal mbuusu Moustapha palpurña bi nag kexe palpurña Abdoulaye Ndioube Abdoulaye Ndioube yi naa fekk alors mu neex nag nga gisal rek ci dëkk démb la fi ñëw ah sinon ma ñëw attelé ne kenn du roota rootalu ñu ne mu dóor benn waay ci mbagg ne ñoo moom dëkk bi juddoo bi di ko màkk dàqee bu ñëwoon bu ñu ko dàqee kon tey du am du am autorité ba naan kenn du roota rootalu a ko def xale bi nag dégg ci dem nettali ko Moustapha ñu kompaloo nag fekk ci ne bi giñ di mu kala ne bi jaaxle bàyyi xale bi jooy na ko ñetti fan ne ko doom noonu naa la lu yàgg yàgg yàgg yàgg bu indi Moustapha wax caaxaan nee nañu mag ñi nee nañu déggula li ñu doon wax da nga dégg ñuy wax rek nga ñëw wax loola neex waaye du tëgg giñ waaye da xale bi doon doon koo yor dëgg yàllaa ko won isa jaaka al munafiqun qalu nashhadu annaka rasulullah wallahu yaalamu annaka la rasul wallahu yashhadu anna almunafiqina lakatibun ittakhidhu aymanahum junna fasaddu an sabilillahi innahum sa'a ma kanu ya'malun dhalika bi annahum amanu summa kafaru fa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun ay kilifa yu wa idha ra'aytum tu'jibuka ajsamuhum ngeen seen rafet borom fasaa ala nit wa in yaqulu tahsama li qawlihim waaye kalaamahum ci jikko kutubun musannada yaxsubuuna kulla shay'in alim tuuge waaye bu ñu dégg defe ne ñoom la yàlla ne gépp ak tuugawaay bu ñu dégg rek dafa ngam yaxsubuuna kulla say'atin alayhim tuugawaay bu ñu dégg rek na ñam ñett dafa na ñoom la ngir càncaay gi ñu nekk فاحشرهم قاتلهم الله وليكم وإذا قيل لهم تعالى يستغفر لكم رسول الله إلا وامرؤوسهم ورأيتهم يسجون وهم مستكبرون سواء علم استغفرت لهم أم لم تستعذر لهم لن يعذر الله لهم إن لا لا يقصد هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله أتى ينفذون xamuñu ولله walillahi السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون واحتمل في يقولون الذي رجعنا الى المدينه اعوذنا العز من الذل خمون ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ندم دي اخر تاردل نيو دفنا النبي سوج موم جو من دهتين جو تارو caabal sa googu gileem ko defoon moo leen dal bañ paree nag werante fu ñu koy suul arrangement dina ko waxaat ngëmmente dal na ñoom ñëpp nekk fa ñu doon werante ku nga ba joy nañ koy defe ca xabru ba am jëma jo ati sa kaw ne bu leen ko sang ko am sobe la ñuy kii laat na ba mu juddoo gars yi d'accord bëgg koo jullee dinañ jëma aati ne man a xabiir maa leen di ndokke leen di jaale te sanga leen ko sanga sobe taxul sunna la ci dëkkoon di wax ak yéen iblis saay saay bi la ñu door a wëlbati ko sang eh utul ndox utul ndéem utul tàngaay alaaj maa kat dina la wax ki sanga na bi dina wax ki doon rag dina wax teen biñ ko roote dina wax malaan yiñ ko sàngi dëkk bañ ko rabbe dina wax it pinc mañ ko rabbe dina ma न कुझु बोलू छॾे ॿुधे किथे बोलो रे कॉक मोकिलियो मुशीद आहे मालिक किथे आलिक माने पहु والدفن كان الخلف يا لهم الأسراق أديب بن فارج الأمم لا إله إلا الله كان أماتنا أيوة كان أماتنا تقايا تيني وقولوا أمات خلف ورنتيتي كلا نغلمتي من في قبلتي فانقا كوكاي فانقا ba def ne booba fu nañu génn naa dina waajala des réeroo amaat na Sidaaji Malik ne na xam naa réeroo ba lan laak lanati xam naa ka leen jinditi ba ñu tegu ci yoon kon damay firi ne kaana amaat na ñu ne moo si lu am mu ne xul fu uutooti ñu ne ci lan lan mu ne dëppos li ci fang ak kuy fang wa daf ne ko rob ak fuñ koy rob daal di ci teg ne yàlla humu ay ndeysaan ci gaa yi ñu ne moo si loo leen mu ne ala siraati abibi tàggoo gi ñu ne la tàggoo bokk ci far yi Ababacar moo leen wax na ma ba tàyyi ni yonente duñ ko toxal fu mu dee lañ koy robe yëkkati leen lalu ndaw sii gas foofu pax ñu suul ko wax na may tiwit ne bés bu ma dee na ma samay bokk sang ñi ma gën a jege bu ma kenn summi nag teyit nañ gëm buñ ci yem nañ takk seen bët ku gis ci man cër bu ma neexul daa sil ma وغلبه أباز وابناه فضل غالب القدر Aliou Kay xam nga lu Aliou bokk nit seen ñaari bàyyi bokk ndey bàyyi xam nga Fapal yi nag mu tudd Abdou Manaf maamam ñetteeli maamam Abdou Moutalib ba ko jur Abdou Moutalib Xaazim Xaazim Abdou Manaf Abdou Manaf moom ko xusey jur moom la ñuy tuddee papi Ali waaye mu taawloo góor bu ñuy wax ñu di ko ooyee bàyyi Taalib ba mu siiw kooku jege ñu ren ci naa li ne na ba muy sanga Rasulullah woo gi bëtam yii mu ngi fekk mu taa ndox daf ko dëtam naan ko mu dàqalee am na ñu ne sax ubbeeku gu réy gi ca ndox ma mu naan waaw sa waay kooku du mbokkam abaata yéen ñaari doom yu góor kii faddalu lañ koy wax kii xuusam ci daal ji maa ne waa ay dorul Aliou bu Talib waaye moom méngoo woon xas la woo joon jafe waaye sottiwul am na sotalu ku ko topp nag ñu mu ne wa Abbas Abbas wa gannaawam ñaari doom yi xooli oh, bu xoo ñoo doon wëlbati côté ba set bu ne ñu ne ñaar doom yi xamuñu pour yi mun a béy faddalu ñu ne ñaar nga waxoon mu ne saa ñu ñaaree la ko dugg ko <laughs> alaaji Malick amul kenn ku ñuy sang te kenn sottiwul ndox raggkat nga wax ak wëlbati kat mu ne ndox sottikat ndox ngeen bëgg a xam ñu ne amul yusuf bi ma ahadi ulama am de ما ذقران واللوث معدود بجميع يصبت دم سكتي أسامة أسامة الماء النقم على عادي تكون نبي تقل خبرك قال لي رجل فسكت نيبت نيوني والبد أباس طلب نقلي ku sën ca tànk ya fëddalu ca bopp ba ku sët ñi tourné alri ragg waa jooju ñu Usaama di sotti ndox ñu ne bu jeexee ku koy jox mois sa Quraan bi jaamina bi la woon nga ko doon def naan laa yëgal nag nag man El Hadj Malick mu tëdd jóg wala ñu ne ah mu ne maxdubun bi jëm ii bi nii buñ koy sang ko deful dara waru la faa toog te loolu su El Hadj Malick tudd la benn service bu mu def te service yi jeex na tudd ñu ràgg kat ah. kan la Aliin tudd ñu wëlbakat wëlbakat kan la Abbas ak ñaari doomam tudd ñu sotti kat ndox ah. kan la Urama ko ko ko jottali loqraan mu ne nag wallaw su yëkkati mubtada pour te parler ñu ne waaw si mu ne mahdudun dañ ko limaale woon di jam ihi nii ca mbooloo ma sankar bi lu jur loolu mooy Medina daje ne leen dëgg-dëgg néeg ngeen góor gi nu bokk ko yéen ba mu dee ngeen na nga koo sanga yéen waa Makka rek du ngeen na mosal kenn ku bokk ci lansaar mu bokk ci ñu ne leen ñu ne ñoo leen délégué kenn mu fekke waaye bu liggéey bi ñu ne waaw ñu délégué lawtu mu ñëw waaye dafa woon service ñu lawtu noonu lañ ko délégué ba ba ñu robit dem na waaye amul benn service parce que taxawal Medinatul Munawara moom dong nga bokkul ci ñu waajal ne bi te bokkul mu bokkul ci ci ci waajal yi nabi am na fukki premier ak ñaar Ababacar jël fukki deuxième yéen ñaar l'islam na bi premier Ababacar bi ay dina la ñu yónni ne bi Ababacar tuub talaat tant mañ ko tantaloon ca Badar na bi premier Ababacar bi xunte ma mu duggoon ba muy gàddaay na bi première Ababacar jeesi ba muy génn màkk na bi première Ababacar jeesi ba muy dugg medinatul mar medinatul munawwara na bi première Ababacar jeesi fañ ko rob na bi lañ fa jëkk a rob première Ababacar a ca toppi deuxième لكن نبي وردم الاخره نبي بريمير ابو بكر بيت بس بني تكلمت مين نبي بريمير ابو بكر بيت ويا الله اوت بني دم نبي ديك دور فا ابو بكر تكي فول بي توب كو مدور ويجي يالا بنا ندي رمو با ادل موم لاي جوخ درابو بي مو رمو وات بني دوغ اجي نبي بريمير ابو بكر بيت

وثاني ليلة الإصلاح وثاني في غبره وثاني يوم البعث وثاني في صفا وثاني في الدخول الجنة رب اوصني ان أشكر نعمتك التي أنت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ابا بركهم أمن هو قانت أنا الليلة سيدي أبي بكر له ولمن خاف ما خمر ربي جنتان أبا بكر يا ليلي وسالي المؤمنين والملائكة بعد ذلك سيدي أبي بكر له ثاني اثنين اسمع في القير سيدي أبي بكر لا يالي بخل من يرتد منكم أن ديني فسوف يأتي لابقا من سيدي أبي بكر له wax naa leen arab booy waxal yow làkk la kees boo topp li topp ci li mën a topp ci yow kenn la waxal kon alam nasharah laka sadrak nabiraka la ووضعنا أنت وسرك ممرك له

مريم وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكرها خالصة لك خالصة لك خالصة لك من دون المؤمنين نبي جينا نبي نجارة جفت أبا بكر ne ko yebal ma ko tëgg bi mu tëgg ko bindal ma ci ñoŋ gi laa ilaha illallah bu ci teg dara bu mu ci teg dara yàlla dogal mu yëpp ko kon ne tëgg bi bindal ma ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah tëgg ba bind ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah Ababacar këmpa jaaru bi yëpp ko Mustafa taxawal fekk ñu bind ci laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi abubakar sadiqillah nabi ne ko ya aba bakrin ma hada sawaay ndollante lii ku la ko sant ku la ko ci def loo mu xool ko ne ko laa ilaha illa allahu rek nga ma waxoon muhammadu rasulullah ji maa ko ci teg ndax ñeme ñu maa tàggale sa tur ak turu yàlla waaye Ababacar Siddiq ji de defuma ko ci te tëgg biir defu ko ci Moustapha rey na ko Jibril ne na yàlla ne moo ko ci def lu ni nga bañ a tàggale sama trop wasam la bañ a tàggale sa wasak wasak moo tax Sidi Hadji Malick ne nañ ko ba foofu del si xilaasat bi ina salaata wa mamlookan la aqiru maa اوصابه مصطفى في عالة العالم الله اقبط هج مالك رسول الله صلى الله مالك ناني سروش بكو يال جخور مو جخنوكو جرو بو مو ييريني مو گي ديبا لي مو موجي دي نين ني ني ريسپيكت كو نياار ييفلا mooy julli ak am yërmande ci ñi ilif ñi ko jegeñ daal nee nañu dégg nañu muy takraaru ñaari baat yooyu di wax naan aleykum bi salaati wa ma malakat aymaanakum ba baat bi mën a set mu di ko wax ba baat bi lëm mu di ko wax ba mënatul a génn mu di ko wax ba ñuy seen nopp ci seen gémmiñ dégg muy takaraaroon di loolu aleykumoo bi salaati wa maa malakat aymaanukum aleykumoo bi salaati wa maa malakat aymaanukum ba àgg ci aleykumoo bi salaati wa maa malakat aymaanukum ba àgg ci yi yëngu te ku ko ñu doo mën xam ñu déglu fekk mu naan maa ngi dem rendez-vous ëllëg kaw sara ku siiwal samay dëgg doo uuteeg man li ma leen di dénk julli yu juróom ak yërëm ñi ngeen ilif ku ci dajeeg yàlla sànkal ko génn julli génn daa dajeeg moom fekk mu mere la mer mu musula mere ku mu bind aleykuma maa ngi leen di dénk di salaati julli juróom wa ma malakat ak oyafal la xam ne ilif na ko aymaanakum seen aleel seen doole الحاج مالك نه ان صلاه جلي جوم ومملوكه كليف كيف كي لا اخر ما موي مجوك يار ييب ياغا خامني او سا دينك ننا موي تنجوكو بي جوم المصطفى نجول مك في اله العالم كي جمني سكرات اخر ما اوصى بقول اخر ما تكلم اخر ما اوصى لامته آخر ما تكلم بينه وبين مولاه فالقرآن ليلة موين دي سرش بو قمنا ترسنا ما بور مصطفى لا ليلة موين دي سرش بو قمنا بور كيف ملا جمعنا بو دي جي يالنا يا ايوان نبي رأي وقت بدين لو كرم بير كرم بنا يا ايوان نبي رأي بنا يا ايوان رسول نت بلده في جيم نسرش بن يبلا لا بقول يا ايوان نبي لما تعذب ما على الله ولا كتبتقي مر لا تسواجك تقول يا ايها النبي وزاد تلختمون نساءك dëggu la yaay wa nabi qul li aswaajika in kuntunna turidna ayata dunya wa zinataha fa ta'alayna ummahatikunna wa sariqunna siraan jamila wa in kuntunna turidna daa wa rasula wa daar laaxirata fa la ahda lil muhsanat minkunna ajran azima bu ne yaay wa nabi rek service bu dugg biir kër gi la te génn ko bu ne yaay rasul rek euh, ñépp lay waxal ma dem de maa ngi leen di dénk julli juróom ngeen bàyyi ko xel boo feebaree ba mënu laa julli taxaw polame taxawul wéeru soo mënee taxaw polamu taxaw wéeru te la nga wéeru ku ko doxee ginnaaw na nga teex tari waaye di tax nga nañ ko wér na ngeen feebaroo boo taxaw wéeru soo taxaw wéeru nga dëju wéeru soo mënul a dëju wéeru nga tëddee joor wéeru julli soo ko mënul nga defaanu soo ko mënul nga tëdd càmmoñ soo ko mënul nga jaaxaan say tànk jublu penku sa bopp jublu xof soo ko mënul ngay xeeb kemtalaay rakk yi bu dee julli suba nga xeeb ñaari bu dee julli tisbaar nga xeeb ñeenti yoon bu dee tiris nga xeeb ñetti yoon yàlla sajjiwul mukk julli ci service loo su nit lu dul dee wax bu rabbaka wax rabbaka wax rabbaka ataa yaatiyakal yaqin maa ngi leen di dénk junni juróom respecté leen ko boole ci am yërmande ci ñi ngeen ilif soxore sa koo ilif dana taxoy wërsëg waaw toujours dama ko daan wax ñaari yëpp bàyyi ko xel rek seet ki ilif yow ku góor ak kilif ilif yow ku jigéen ki yolomal ki yàlla jox na kilifa poor boo xam ne bu dangalee musibaam ndax bu kër bu bàyyi gërëmul doom safara la jëm bu bàyyi bañee gërëm nag bañ a gërëm ngir xiis musibaam moo tax ne bi ñaan teg fi ne rahima la imriyun ahana aloo fi taatihi yàlla na yàlla yërëm yëpp kilifa gu dimbale njabootam ci ñu mën a am ngërëmam waaye na xaree daf torop baax jigéen ñi daan naa leen wax ne ku ci am mbindaan di ko jànne ka gëdd googu te lu yow judd yàlla soog ko néewal wërsëgam baaxale sa wërsëg yaa mu jaay la juddoom di la xëyal balaa lekk nga desal boo jógee mu la booy fu dem tàllal ko say tànk bu di la bootal sa doom soo ci bëggee boole nag bu doom ji jooy nga naan ko doxal fële naxe ko yaa ngi bëgg a ëppal xam nga ne yàlla defa day daldi wallu si rek fexe fexe ba borom kër gi nopp ko mu takk alaaji malik ne rasulullahi ne aleykum maa ngi leen di dénk bi salaati ci julli yi juróom wa ma malakat ak la nga xam ne ilif na ko aymaanakum seen loxo loolu la nabi mujjee dénkaani alaaji Malik gisaaw laa wana xayran wa radiyallahu taala anhu bi ma bi tolloo diggante mu ngi mel ni ñëpp ñu tollu diggante ay bokkuma ko siqoon am na xew-xew yu fa xew nag am na ñu mu cité na ñoo seede xew-xew yooyu ci la ñu bëgg a dégmal nag comme julli ak koor ak saraxe ak jokku bokk ak jàng alquran ak aji màkka ak jaar yépp la ñu complété woon jóor ci loxoom mu toog ba départ def mu ci yaari yëpp di ko takkaraaru ba mënatu wax yooyu mat naa bàyyi xel inna salaata julli yu juróom ba mam loo fal kilif téeb ca ña maa ngi xamal yow mi xamul ne la aqiru ma awsa bi Mustafa ñu ne daal ji Malik ak lan mu ne la mu gi laaj papa wax naa ak yow keroog bi mu génnee àddina nga siggi jooy mu waxaata yow nga siggi ree mun a wax bu njëkk bi daf ma xamal ne tey la sama bés bi mujj ci àddina tey laa dajeeg sama borom looloo ma toxoon a jooy sa gaat bi nag li ma tax a ree daf na ñi ma jur yëpp yaa may jëkk fekk si looloo ma kontaan loo mu ne ko lu tax doom may wax yow ngay siggi te yareewu ma la noonu na bee ëppoon ñépp teggi bu dajeeg yow ci yoon waxat mooy jëkk a su ngeen joxantee loxo yaay jëkk a rocc su ngeen taxawee yaay jëkk a départ su ngeen di jàmm sant jàmm sant yaay jëkk a noppi soo ko nee mane mu taataan la noppam bu tedd ba fekk dagaa sowo sa gémmiñ du siggi yem si bi laa xafin wala naalin ila iyadatil mari bi jalla wa ala mu ne ko papa day def bu ma sëggee rek lu mel ni takkadeer tiim te bu ma sëggee du ma ko gis na bi bëgg a jóg pour xool ko doole ji jeex mu ne ko may ma dox mu rof poqataani Moustapha yu tedd ya dëj ko na bi dawal bët bi muuñ na ko wax nga dëgg malaakal mawte làqu ci bunt bi bismillah dëj ba mu dox mu ñëw taxaw mu ne ko ali saairin bi ihsan aw li xaabidin malaaka yëpp seet si nañ ma ba mu des yow jël si waale la bu la neexee bu la neexee ey kuñ fi waxoon loolu balaa nga koy jóg bu la neexee gisal maa ngi laa bëgg a nette lu sew yàlla ne na Jibril lay wax ak Moustapha nga toog fi junney at te boo dee dem àjjana ak nga dem tey àjjana mu ne ko dem tey ma ne ku ñu noonu toog fi junney at kaay dem tey àjjana tey tey ñu yóbbu la àjjana mbaa nga toog fi junney at te boo dee débrouiller sa bopp da nga naan bàyyi rek ma faf débrouiller suma bop mom nak dañ ko ne tay aljana junney ak aljana mu ne tey déggu leen wax li mo tanal bopam la ha laaha dajeeg yàlla kañ la isma xayyarahoo kero ba nga xamné tanalo nako dem ak tok ko ko def lo lawu yàlla motax mané ma ne axtaara laaha isma xayyarahoo laaha isma xayyarahoo laaha waxtaara laaha ñu ne na mo def njabot bi mu ne sa suudi mu ne këri mu ne saa sama mi laa ilaha illa allah اختار الله آل كونه ساسود عن الظهار في وآل كونه ساسود عن الزمم njaboot gi gannaawal na leen fàtte nit ñi ñu ne dafa xëy dee Maodo ne xam naa li ñaata fan la feebar xam fi ko feebar bi attaqué xam bés ba ñu ne wax nu ko suba laa guddi mu ne la يدا عند بعض أو تهوبه يدا عند بعض وإن أنا الرئيل له في يومه العالمي تلمين البيت التطميم البيت بكم ترميم البيت mooy woy woo arool ba jeex sox wax ba jeex tàkk tàkk tàkk te xaafiya ba des nga wut loo ko complété talmiinul bayt mooy wal wu jeex tàkk xaafiya ba jeex te wax ba des nga àggalee ko feneen moom da def na ko ba tay ci xilaatam abdu manaaf bu mag bi laay wax waqul qusaa maa saaloo yelloona ilaa an jaa xuseyun ulaylan xaatibal karami ube hmm? talminul bayt waqul qusaa maa saaloo yelloona yelloona ku mag moom ku mag moom ilaa an jaa ba juux si xuseyun góor ku seet si ulaylaan doomam bu ñu wax ulaylaan ngir lan xaatibal këram yi këram yi mooy ubbee lu noonu si daa ji mat na ñu ne si lu mat mun a taxa ubbu waajtaay wax ñu ne mu mat mun a yeddan yaa diis deel kat liif gi bu ko calculé la de booy bind xilaas saab daf ci am baat yu alaaji Malik jublu ndax baxru bi dafa neexu la way di di di compter chiffre mu fab nag isaabul jamil remplacé ko chiffre yi te arab dafa riis baat bu nekk araf la di leetar di chiffre lii foo ko fekk ci arab un la baa toujours deux la jim toujours trois la del quatre alkabir cinq waaw six racine toujours sept la ab lonk huit la tatank neuf la yanara di dix ñu bàyyi Euh, euh, ñu bàyyi bâche commencé dizaine keef vingt laam trente mim quarante nun cinquante sat soixante ay ndëgal soixante dix faa quatre-vingts laat quatre-vingt-dix ñu dugg santé xaaf cent ra deux cent sin soo trois cent ta tombe quatre cent ñetti tombe cinq cent xadam dellu six cent del ju toy sept cent ta tànk ju toy huit cent xëy ndigal neuf cent si na la su tooy mille abadiada bi jeex Maodo nag di la xamal ne du ma woy mukk di la wax deux cent quatre cent dama lay yebal ci isaabu jamil nga calculer sa bopp kon awaa mat na ñu ne si lu mat nga ne taxa ubbi bul faale ay fayul googu nag daf fi dugg a soppi jàmm fayil it xawaa jàngu taxa ubbu waaj saa yi Moustapha wa mat na yat dan na xoolam bii quatorze jours talaata la feebar métti digg la ko commencé ca tàkkusan mu julli tàkkusan dugg néeg relèvement Ababacar timis la jëkk a jël fonction kite ko nag ak jullit suba maa ngi waaw waññal de talaata àllarba alxames ajjuma gaaw dimanche altine talaata àllarba alxames fukki fa ajjuma samedi dimanche altine une heure moins quart ruuga dem àjjana awaa mat taxaw bu waajtaay wa yeddan 14 suuf ñu ne waxuñu waajtaay départ bi mu ne aana amee na nag rexiilu départ bi dem àjjana fi yow mi ñu ne bul nu jaaxal kat yàlla noonu Moustapha daraam réeru la ñu di la laaj nga naan bésam ba mu ne bés ba mu tu la wax alaalat Moustapha altine la lañu jëleer leer gi ci ginnaaw baay bi dénk ko yaay altine la yëg giseeg yàlla altine la génn màkk altine la dugg Madinatul Munawwara altine la dellu àjjana moo tax ñu tuddee bés bi bésam bésam bi jasaawulaaw naa xayran yaa ñu yaa xaysal baax kon bëgguñu daray Moustapha lëndëm mu ne yépp dina leer nii ma la ko waxee ni lay leere ñu ne ko kon nag fi yow mii xamuñu ko mu ne aha ñu ne waaw mu ne déglu leen ma wax leen luy fi yow mii ñu ne yow la ñuy déglu mu ne naan ma firil leen ko mooy fi yow mi mawlidihi mooy fi yow mi mawlidihi ca bésab ganeb addinaam ba ci la génne addina ci fan fi bayti aisatin ci néegi jabaram bu ñu wax aisa kañ xabla sawaal ginnaaw diggi bëccëg jiitu tisbaar سيدا حاجي مالك نبو كان خمول في يومه ما فيريكو في يوم مولده موي بشبه في بيت عائسة موي ليب قبل سوال موي أرب بزور مولد موي ويروا خمالني بي بي مصطفى عقي مدينة المنورة رسل صنبين يخلون من أجل ذلك غدا رخاف سمام لها أتتنوخ تتنوخ لور مؤسب جنتاج وما بتا أين ابتدي قد يقدر ابن مالك الله كتب أين بقى. وما بتا أين ابتدي قد يقتدر فيه على التاء كتب أين الحبس سيال بكم عسي ساتون بالتاء بقى واد جمو متاريخه mon nga doylo jenn paaja bàyyi benn ba motax tax Malik tegg jenn tato bi nde way wi di min ajli zalika qad arxa sinaana laha atta tatanawaxa mu diis mu tegg genn taagi mo rot mu way ne min ajli zalika qad arxa sinaana laha atta bab al masjid al haram min ajli zalika mooy lan walam yasal qailan mustanzili fi ma'muratun saatu uznin sawi moo tusami min ajli dalika nag xasaar xaas maamu baax bi na bi na yoxoos Madinatul Munawwara dafa fekk ñu xal ñaari mbedd xasrit yi nekk ci ndeyjoor laws yi nekk ci càmmoñ ñu fa fleur yi borom taaxi ko yi di tuur bong bong ñi di tuur ma am nañu bari xaalis ba yow sol benn benn benn benn libidoor penc mu mu dugg nag juróom benn penc am Medina boobu penc bu nekk am na chef de village banni bayaadate banni zaid banni bani xaadit kenn ku ci nekk bu duggee seen pénc balaa ngaa génn nga dogale ko téye nos bi na ko bu ñuy wax Medina fee tax wàccal fii la gor yi ne fii la jàmbaar yi ne alaaji Malick ne chef de village bu wax loolu na bi jéy se na ba tolloog sa nopp am lu mu la déy bu la ko déy rek na yalax parka gi dellu ci làng gi giléem ko continuer tàpp mu ngi sol mant bu sonn daana def toujours boo amee victoire nag lu ñuul lay tañ daayoo bot yi lang mu mel ni weer duga bani bayaada xaalida yi chef de village mu ni ko nuus ne ko fii doole yi mi dina ne fii la gor yi ne wàccal na bi langaan am lu mu ko déey mun a yarax dellu ca làng alaaji mari ne leen bi doon déeyee xam naa ko waaw waaw booba commandant d'arme bu ñu wax jibli la jiitu yor benn baton wuru su ngalam di jox na bi sëñ gi leen gi si ko ku ne nuus mu ne sa wi moo tusa mi maamuura gileem gi ci ndigal la ne bàyyi leen ko mu dox maa doon ak ne min ajli salika tontam lu sax dàkk loola mu tontu ko premier deuxième troisième min ajli salika ngir dégg tontam lu sax dàkk googu xat arxaa la ñu libéré simaama nos ga laa ñeel gileem mu tempal boppam rek di fóon di temp di fóon rek atatana wax baabal masjid ca fa nara doon bunta ba fii ndem keroog ngay firi dem kéro ngay firil nga ne ca fa nara doon bunte ba bu dee tey nga ne ca bunte ba fa la tëdd wal badru ma allaha anha zumaxat wa sabat wa sabat zërët baax na jërës baax na ñetti tomb ak raag ñetti tomb si daaj maa yi dafa bàyyi luxa bi ngir sa kanal indi sa zarat walam ta ha walam tanha wa rajaat wa rajaat wa baraka wa barakat wa jahjaw lam yakun كوكو ما جاف لا بأسف جملة الجملة دفع ما جاف بأسف الحرف أك ما جاف بأسف الكلمة أك ما جاف بأسف الجملة أك ما جاف بأسف جملة الجملة أم فواي تاها سورة تاها فقبلت قبضة من آثار الرسول فقبلت قبضة من آثار فرس جبريل الرسول يب نيدوك على ما يدق يو جيلم غبو موك ما دو دفا باني mun a ñokket dox dellu si wat yéeg ne nañu ikkmatu bi ne ci yës googu dem dellu si yësaat ñaar la première yës gi daf ko ne fay kër gi yàlla wax ne bi dig digal mu dellu si yësaat ne ko fii lañ lay robit moo tax ci bayti ay isati xam la sawaat yës go gi dane kër gaa nabi di digal pour mu wóor mu jóg wandaalu yeesaat ne ko fii it mooy bàmmeel bi fi ngay taxaw ëllëg ramu nit ñi yëg nga ne njàpp ma nabi dugaale woon bàmmeelam moom lay taxaw ëllëg ramoo ko nit ñi du ko yeesal sax afdalul xalqi jumlata benn bango benn ba bi nabi dogeeg biñ koy suul réeroo am na fa Maodo dina la ko wax léegi réeroo su ndaw sooso mooy jaabante ñaari jaabante yooyu ca keroog ba mu agsi si daaj Malik ne خو خو بانجي امي في يوم مولده بسنغو في بيت عائشة فلاسنغو قبل سوال اورنغو بسير مولد ويرنغو رنجي كي ذكرك جرمي كي مدينة يبنبلو بام يب ناخندو جنار يب سبندو غرب يدف خطا تا تا تا خيريرو ابلاينا عبدو مام دكو فيك طول نكو بايام نلو خيو دمو نكو لن نمو نكو رسول جينا نادينا ليجي لنيوه mu sànni roto bi fekk mu ngi planté mu sànni roto bi na yàlla xale bi li ma wax bu dee dëgg xaru day araam waaye sama nagi bët yi bu fekkee lu ma xool xoolate du ma gis mu Moustapha naa gëm ma tey jii fa la fa la silmaxa ba dee xasuwaa jilee moom la woon ba nabi dogee dafay xëcc di xëcc ba teen nga dog mu daw dugg ci teen yaa for mbaamam ma lekkatul naanatul ba ni mu ko fekkee Moustapha sallallahu alayhi wasallam si daaj maa dina la wax ak yow loolu léegi ñu ne waawam alaaji Malik ba nabi génn àddina ñaata fan la ci bi mu ne ñetti wax lañ ci wax duma ma nak dina dinaa la indil yëpp ba xam li laylatin xiila li laylatin wa xiila li laylayni laylayni qad khalata wa qiila fi ubbihi haji Malik ne ne bul yokkat fadhul wala tanami mana li laylatin qad khalata وقيل الليلين قد قلتا وقيل هبي قد قلوا لليلة قد قلت أو ليلين قد قلتا أو هبي قد قلوا فبهز ولا تنمي حاج مالك منها ينتي الله محمد mu جينا génn لليلة تنتي فنقو جك fan gu خيلة لنك xiilaak xaala xultoo am ci arab xultoo gën a dëgg mooy firi mane xaalaa ci topp mooy mu ne ku la sonal nga wax ki wax xiilaa gën a doye di mooy neef na ah <laughs> ma dem de li lay lettin xalaat وقيل الليلين غدا غلطا وقيل بيود الكبير ويت بعد دو سابق كتيم دو ويت بلس ويدو ديس بلس دو دوس الزخاري بو كو وانيال دمير جانغي دلو سي وير وي بوكو كالكيلي دانو واو am na ñaari wub bii damir ji ci weer wi la dellu bii damir ji ci Moustapha la dellu dafa am ku doon laaj salaatu naariya ak salaatu tuntina bu ci gën a foor mu ne ko naariya day di damir yëpp dellu ci nebee tax ma gën koo sopp te kii damir yëpp dellu ci julli gi <laughs> waaw waaw moo tax waaw maa ngi dem de xii la am nañu ne maa ngi leen di questionné si nag li laylatin génn guddi xat xalaat koo xam ne wéy na ci weeru gàmmu la nabi génn addina ma laaj la kon ñaata fan la feebar ci digg baraxlu wa feebar bi tuuf fukki fan la woon ak ñeent ma ne boo xam ne benn bés fale dee kon ñaata fan la feebaroon ca weer wa fukk ak du noonu wa qila lay lay nii bu fekkee ca ñaari fan yàlla te fukki fan ak ñeent la feebar kon ñaata fan la feebaroon ca baraxlu diggu gàmmu wa nga ne fukk ak du noonu waxiila am na ñu ne fi wóppi fukki fan yaag ñaar ci la génn àddina kon ñaata fan la feebaroon fee ñaari fan am déet si daxaaj maa li nga ne rikk waay te bari xiila yi bu mu la tax a yokkat fa hël gëstul rek jëndal te nangoo yër bu yàngee nga dajeg dëkk wax naa la ne xultu ak xaala ak xiila la xiila xultu mooy firi mane wax naa ne booboo gën a wér xaala mooy wax na ne wax na ne ku sonnal ki ko wax mu wax ki wax laa wax waaye neef na amul fu mu dëgg ba toujours ci dégg gi daa daal di xam ne fi dëgg gi gën a joy jëm bu leen woy ma ñaxetu ñaar yooyu ngeen woy nu jàll dama bëgg góor gi dégg yépp juróom-ñeenti bayta ci des Sidi Hadji ne na gën a am na jeneen ju am waaye bi gën a siiw laa lay waxal njont yàlla Mohamed ci diggi guddi ga lañ ko doororo déglu leen nag foofu bu baax gars yi fi qawlil ashari laa lay wax wax bi gën a siiw yëg nga yëg ne loo gis leneen gis naa ko dama ko waxul wax li gën a wér maw day wax damay bañ nga yërëb leneen gis feneen leneen lu wuteeg lii ma di la yëgal ne gis naa loolu lii da ko gën kon fi xaw xawlil azhari wax bi gën a mooy ana daf na suul jëmmam ju tedd jëmu ngi amee laylatul arba'a ñu ne ban heure mën a fi jëw fii léegi ci digg guddi yow laay waxal nag li koy fidiri xamal li ma lay nettali wax takkim nii te nga xelañ ba mën koo nettalee ni ma la ko waxe bul woy de ñu ne gaaw a rob mooy sunn ci juróomi yëf rek la bëgg ku gaaw rob néew bu wóoree na dee na ndéem da dafa lap mbaa jaan màtt ko ñoo ñaar bëgguñu ku leen gaaw rob ku jaan màtt bëgguñu ku ko rob ku lap ci géej bëgguñu ku ko rob niiw boo am budul yooyu ñaar gaaw a rob la ci yoon wax doom ji jigéen ju mët a sëy gaaw a maye rek bor boo leboon ba jekkoo gaaw a fay rek tukki ba sa aajo faju gaaw a ñibbi rek lu tax rasulullahi alaaji maaj dañ lay laaj yaa noonu yaa xaalis bari lu tax nabi santaane gaaw a rob ñu tardeel koo rob mu génn àddina altine ci inaar jekkali bëccëg ba dugg guddik talaata ba bër set mu indu talaata ba jant so mu dugg guddi ga ba mu xaaj lu waral loolu mu ne ñaari fee xewal yépp ginnaaw bi mu dee la xew fee bu ci nekk dafa am werante werante wu nekk arbitre rek la mu leen attee xam naa billahi premièrement min daxsatin deuxièmement istiqaalihi man yi wàlla kalaam réebi deewul Omar ne na deewul ku ne dee na rek ma rey la dafa dee jéeg yàlla nu Muusaa defoon ba ca gib altine bi loolu la ñu werante ba jant so ñu d'accord ne dee na ndax Ababacar leen jindi booba mu ngi aye ci séetam bu ñuy wax ab Abibatu bintu Xaarija guddi ga Ababacar fanaan nii Medina kër bàyyi xale boobu la fanaan keroog la xale boobu juddu nga xam jigéen a gaaw màgg bi ne bi dem àllaaxira mu ngi koy céetali moom bi muy dem àllaaxira mu ngi ko bàyyi mu ëmb doom bu jigéen la wasin ginnaaw Ummu Kalsum la tudd aaxaro tardeel nañu daf na na bii sool ju moom ju tedd ja min def sa teen ngir tarug ngëlëmte jaabante googu gileem nga moo leen dal bañ paree nag werante fuñ koy suul alaaj maa dina ko waxaat ngëmmente dal na ñoom ñëpp ci nekk ba fañ doon werantee ku ne gëmmentu nga ba jey niñ koy defe ca xabru am jëmm ju atik ca kaw ne bu leen ko sang ko am sobe la sang kii laat na ba mu juddoo gaa yi d'accord bëgg koo jullee geneen jëmm atik ne man a xadir maa leen di ndokke maa leen di jaale si sanga leen ko sanga sobe taxul sunna la ki jëkkoon di wax ak yéen iblis saay saay bi la li doo rëwal bëti ko sang eh utul ndox utul ndéem utul càngaay alaaji maale kat dina la wax ki sanga na bi dina wax ki doon ragg dina wax teen biñ ko roote dina wax malaan yiñ ko sànge dëkk bañ ko rabbe dina wax it pénc mañ ko rabbe dina wax kulóori malaan yi waaw ma ne niw bu dëggoo lu ca def bu dee bu dee gi dëggoo lu def waaw kon ñu ne ko nag yow nuy déglu si daay ji Malick mu ne lan والدفن كان الخلف يا لهم على فراق أبيب فارج الأمم لا إله إلا الله كان أماتنا غير كان أماتنا تقايا كتير نيو بلو أمات خلف يرنتيتي كلا نغلنتي من في قبلتي سنغا كوكاي سنغ ودفني وبكم كيوري d'accord nañu génn naa dina waajal a def amaat na sidaaji Malick ne na xam naa réeroo ba lan laak lanati xam naa ka leen jimbiiti ba ñu tegu ci wu yoon kon da ngay firi ne kaana amaat na ñu ne moo si lu am mu ne xul fu uuteeti ñu ne ci lan lan mu ne fi xusli ci sang kuy sang wa daf nekk rob koy rob daal di ci teg ne yàlla humoo ay ndeysaan ay ndeysaan jëmi ci gaa ñu ne moo fi loo leen di yërëme mu ne ala firaaqi abibin tàggoo gi ñu nar a tàggoo soppe bi tey far yéene ko Ababacar moo leen wax na ma ba tàyyi ne yónnante duñ ko toxal fu mu dee lañ koy robe yëkkati leen lalu ndaw si gas foofu pax ñu suul ko fi wax na may ci wéet na bés bu ma dee na ma samay bokk sang ñi ma gën a jege bu ma kenn summi nag te nañ gëm buñ ci yem nañ takk seen bët ku gis ci man cër bu ma neexul daal silmax waali غلبه أباز وابناه فضل غالب القطب alil kay xam nga lu alil bokk ak nekk seen ñaari bàyyi bëtam yi mu ngi fekk mu taa ndox daf ko dëtëm naan ko mu dàq leen am na ñu ne sax ubbeeku gu réy gi ca ndox mooma mu naan waaw sa waay kooku du mbokkam abaté ah, yéen ñaari doom yu góor kii faddalu lañ koy wax kii xuusam ci daal ji maa ne wa ay dorul aliyu bun abi taalib waalin moom méngoo woon xas la woo joon jabe waaye sottiwul ndox de waaye am na sotalu bu ko topp nag ñu ne ak kan mu ne wa abbas abbas wab naawam ñaari doom yi xooli oh, bu xoo ñoo doon wëlbati ko te bu set bu ne ñu ne ñaar doom ñu xamuna tur yi mun a bay faddalu ñu ne ñaar nga waxoon mun a saa ñu ñaaree la ko bi xusum <laughs> alaaji malik amul kenn ku ñuy sang te kenn sottiwul ndox ragkat nga wax ak wëlbatikat mu ne ndox sottikatu ndox ngeen bëgg a xam ñu ne waaw mu ne yusuf ma ala usama am déet maa zaqraan wallawtu mahdudun bi jam'ihimi yusabbit doon na sotti usaamatu usaama almaa a ndox ma ala aadi ci kaw nabi toppa loxo ba rek àlluy ragg ku set ñett ñooñu wëlbati abbas a tolloog ndigg li ca tànk fëddalu ca bopp ba fu set ñu tourné àll yi ragg waa jo ñu usaama di sotti ndox ñu ne bu jeexee ku koy jox mu ne sa Quraan bi jaami na bi la woon moo ko doon jottali maa ngi laa yëgal nag nag man alaaji Malik mu tëdd jóg wala wusu ñu ne ah mu ne mahdurun bi jam ihimi nii buñ koy sang ku deful dara waru la faa toog te law su alaaji Malik tudd la benn service bu mu def te service yi jeex na tudd ñu raggkat kan la aliin tudd ñu wëlbëkat wëlbëtekat kan la Abbas ak ñaari doomam tudduñu ka ndoxo kan la Urama ku ko ko jottali Zoxraan mu ne nag wallaw su yëkkati murtada pour séparer ñu ne waaw si mu pour séparer ñu ne waaw si mu ne maxdoodun dañ ko limaale woon bi jam ihimi ca mbooloo ma san service lu jur loolu mooy Medina daje ne leen dëgg-dëgg néeg ngeen góor gi nu bokk ko yéen ba mu dee ngeen nangu ko sango yéen waa Makka rek du ngeen mosal kenn ku bokk ci euh, lansaar mu bokk ci ñu ne leen riri ñoo leen délégué kenn mu fekkee waaye du liggéey bi ñu ne waaw ñu délégué lawsu mu ñëw waaye deful woon service ñu lawsu noonu lañ ko délégué ba ba ñuy robit dem na waaye amul benn service parce que taxawal medinatul munawara moom doon nga bokkul ci ñu waajal ne bi te bokkul mu bokkul ci ci ci ci mois ji bi am na fukki premier ak ñaar Ababacar jël fukki deuxième yéen